buñ ko mëna xamé inna akramakum indallahi atqakum nañ delluwaat ci njàngaleem yonent bi comme wajal gamu ci lañ nek insha allah wajal gàmm ñi door gàmm gi léegi rek ndax gàmm tur wi tur wi jiitu na fi islam waya ñi ko doon def ci suñu rew yi nañ ko doon defé baaxut bi mag ñi ñëwee ñu ne leen ñun nañ ci programme bi man nañ fee baye tur yi ñun ñi def ko ci defin boo xam ne dafay dëppoog borom bi eh, li borom bi bëgg kon door nañ gàmm gi maa ngi ci xeebaate maa ngi ci bët bi yonent yàlla muhammad bin xool doomu aadama góor jigéen mag ak ndaw ana bët boobu fiqwu boobu anam maa ngi lay jàngalaat beneen hadis waaw inna imra'atan sawdaa kaanat taqummu masjida fa faqadaha فسأل عنها فقالوا قد مات في ليلة المعدي ودفنها أو ودفنها كأنهم ذكروا أمرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فصلى بها حديث بلمي وخ دفع أم بني جيجين بو خامني جيجين بنيول مولان مودان جماجي moo daan bale jumaa ji di fomp defer benn bis yunt yàlla Muhammad xëy rek nemmeeku ko gis ko mu bale mu ne waaw ana ndaw si daan bale fii ñu ne ko xay yow mi yàlla yónni kooku faatu na di dafa faatu ci guddi ñu dem denc ko maanaam comme dafa mel ni gars yi dañ jàpp ne balekatab jumaa la rek jarul ñu koy waxi yónent bi dinañ ko yóbbu dem denc ko rek waaw yónent yàlla moo man ne ah fan ngeen ko suul ñu wax ko ko mu jóg rek foofu la jëm dem ba fi ba tiim ko ci xabru ba mu jullee ko foofu lu tax leen ma lu tax leen ma bi mu faatoo ci beneen riwaaya ñu ne ko ah moom de dafa xawoon a guddi waaye ñu bañ laa sonnal rek comme kilifa mu ne teewoon ngeen ooma waay wan leen ma fan ngeen ko suul ñi wan ko ko mu dem fekk dem ba ci kaw xabru ba mu jullee ko sallallahu alayhi wa ala alihi mu jullee ko ci biir bàmmeel waaye bi mu ko jullee li mu wax moo gën a daw yaram xam nga lu mu wax daf ne bàmmeel yii ma ñëw julli si bi maa ñëw lëndëm kese laa fi fekkoon waaye bi ma jullee ba pare gis naa ne yàlla feesal na ko ak leer ñëpp a ci jàmm léegi muttafaqun alayhi hadis bu wér la seetal ndaw si niñ ko xeebee woon moom lañ jàpp ne mooy balekati jumaa bi ay balekati jumaa bi